dénkee bi ñu ministre de l'éducation dénkee liggéey bi euh, dañu ko defal dans un premier temps benn plateforme ñëw wan ko ko biñ ko ko wane mu ne donc da koy euh, euh, da ciy diisoo ak mbooleem kuréel yi seq wàllu njàngale donc ci la woote ndaje bu yaatu ak inspecteur d'académie ak inspecteur de l'éducation yi mais également avec les parents d'élèves, avec euh, les syndicats, avec les, organisations de la société civile. Donc, nous disons que pareil, nous avons une plateforme qui des euh, suggestions, qui a des choses nous Donc, si nous avons des choses nous avons des choses qui nous donnent, nous avons des choses qui nous des Donc, nous avons des choses donc biñ ko ci défé ba paré ñu woté wat benen dajé bu yaatu en présentiel donc biñu ñëwé tok également ñu wanat leen li ñu def ñu xol ko biñ ko xolé aussi wax ci seen xalaat mais biñu paré ñom ñu valider ko biñ ko valider nak ci lañ ko door a ubbi pour que ñëpp mën ci accéder donc euh, biñ ci ak bi ci nit ñi di accéder également amuñ ci benn jafé-jafé candidat yi bëgg déposer sen candidature yëpp déposer nañ ko donc nous déposer ba également Nous euh, ñun on s'est retrouvé avec 152 euh, 152 euh, euh, candidats 152 050 candidats 63 918 ay

ci pays yi ci aduna yëpp yu xamné ay sénégalais lañ yu nekk fofu xëy na ñu ngi liggéey mais xam naa seen xalaat dafa nekk ci dellu si euh, fii nii euh, ñëw jàngale si fii donc ñëw servir seen pays donc si aduna si yëpp am na ay nit yu fa yaay euh, sénégalais yu fa nekk yu bindu foofu en tout cas exprimer seen soin dañ bëgg a jàngale nous avons France la Arabie Saoudite la Brésil lañ États-Unis lañ donc euh, Canada également Nous euh, bi ci France la